وخديمي وسلم تسليما حجاب الدارين حجاب الدارين في دعوس من النارين وهو مرتب على خروف قوله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كل المحامد لمن يقسمنا مصليا على لسي يؤمنا السلام عليكم ورحمة الله لو نيو مبوكي طالبي ييب te di leen siyaare te di leen baalu xaq te di leen baal xaq te ñaanal ñëpp jàmm di ñaan lépp lu luñ fi liggéey rek yàlla nañ ci dajeeg tawfiixi Serigne Saliou maanaam liggéey bi moom day dem ba dootoo yëg sax ab coona ndax yëg-yëg gi ngay am ci yàlla sangu bi tedd bi ñuy àndal tamit xertal gi mu ñuy xertal ci liggéeyal Serigne Saliou noonu la bëgg a dimbali rek kon maa ngi ñaan lépp loo xamante ni bii jëf nañ ko fi rek sunu borom nangu ko te yàlla dolli leeri sëriñ Saliou mbàkke te taas ñu ci barkeem lii yoon mooy liggéey bi moom fépp foo xamante ni bii waaye nga fa nekk moo xam nga di murit moo xam nga di tiijaan moo xam nga di laayam moo xam nga di xaadir lépp loo jàppoon waroon nga koo bàyyi ñëw wuy si ndax Serigne Saliou Mbacke dimbali na képp koo xamante ni bii ab jullit nga ci loo yëg ak ci loo yëgut ndax damay nettalu ci lu gàtt rek ci xasida googu ñu naan rabbi bi maa israhu am na ko commence di jàngal ba iski ci yaa maalikal mulki yaa man jàll an hawadin irham jamial wara ya hadiya ndada Serigne Saliou moom dafa sonn woon waaye daa jóg toog daan ah bayit goog de ëllëg yow mal xayam fépp fu mu murit nekk fépp fu mu jullit nekk dana yëg njariñ li kon Serigne Saliou bu wootee lu mel nii rek fépp foo xamante ne bii doomu aadama ma nga fa te di jullit war naa wuy si ci woote booba kon liggéey bi ñuy liggéey ñu daanaka yëguñu ci ab coona lépp rek ak cant la dañ koy delloowaat nag ci suñu sang bu baax ba moom mi nga xamante ni bii daa ànd ak ñun ci soññ bi di Cheikh Ahmadou Mbacke Maawul Hayaat du tay du tokk ci liggéeyal Serigne Saliou jàpp na ne moom bu liggéeyal Serigne Saliou moom saa yi ci wootee moom moo ca war a jiitu moo ca war a mujjiit kon ñu ngi koy ñaanal moom mi yàgg fi lool te ànd ko wér di nuyu tamit mbokki taalibe yëpp ñaanal jàmm ñaan Serigne Cheikh Mbacke Saliou mu yàgg fi lool te ànd ko weer di ñaanal Serigne Mountakha Bassirou mu yàgg fi lool te ànd ko wér màggal gii nu jëmit ñu jëm ci ci jàmm. tëjee seeg tawféex Serigne Saliou saahiran wa baatinan. ginnaaw bu nuyoo euh, di sant nag Serigne Saliou Mbacke bu baax di sant Serigne Saliou Mbacke bu baax di sant waa daayira bi parce que gis naa ne daayira bi daal am nañ pësteef wax dëgg fa si yàlla pësteefu nan trop liggéey bi niñ ko yaakaare woon sax demeewul ni parce que gis naa ne biñ ñëwee daal kenn tappalewut defut dara ñu ngi def li nga xamante ne moom lañ war a def. ñu ngi topp ndigal li jàpp euh, topp jëwriñ bi waaw wax dëgg fa yàlla daal ànd nañoo pësteef bu baax a baax a baax a baax ñu ngi sant nag Serigne saali Mbacke bu baax a baax. waaw xanaa sant yàlla rek di julli ci Moustapha sallallahu taala alayhi wa sallam sant bu baax sangu sunub sang. Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Khadim Bamba Khadim Rasoul di sant Cheikh Ahmadou Mbacke Maoul Hayaat di ñaanal sëñ Mountakha yàgg ak wér lool di ñaan sëriñ Saliou yàlla na suñu borom yokk ay leeram sëñ Cheikh yàlla na ko suñu borom yàggal ak wér ñu ne dañuy sant rek maanaam sant du yeesu cant waaye dañuy dooleel sant ndax dafa am loo xam jagleeku suñu borom la maanaam liggéeyal yàlla suñ borom jagleelu ko jaamam ñëpp am na ñoo xam ne dund nañ ci kaw suuf ba faatu suñu borom réeral na leen ba xam ba nu umpale jëmmam ja waaye nag su yàlla booleeg jëmmi njëggal jëmmi yërmande jëmmi taw feexam bu ñuy wax taw feex dëgg mooy sab xel sam sab xol du bëgg lu dul suñu borom du jublu lu dul yàlla kon suñu amee jëmm ju ju ju ñu teg ca yoon woowee ànd ca ak ñun mënu ca fop ak sant lañ koy def liggéey bi ñu nekk di ko di liggéey ngir jëmmi yàlla liggéey suñu borom la dara génn ci yàlla lépp liggéeyam suñu borom la yàlla bi ñu taw fee xol nag liggéey loo ñu wax ñuy daaw indiwaat ñu ci waaram ñu di ko liggéeyal suñu borom moomee dañ koy sant tey ñaan mu dëkke suñu xol ba leneen bi ci mën a dëkk ndax liggéey la boo xam ne kat ku ci xëy yëngu so ba ngoon da nga xamne du lu doole di def du lu carton di def du lu man-man di def wa da nga xamne ne sama borom da ci nek sun borom mo me nak yalla ñu gëna a loxo gën ñoo saxal ci keppaaru cheikh ahmadou mbacke maawul xayaat wa Seydina Omar ren la moy sen taxaway ci lu lu yes lo xamanteni wa Touba Manarul Huda am nañ ko ci liggéey bi wa ñun day suñu taxaway moy dañoo engagé dañoo jaayante dañoo jaayante ak borom suñu borom nag daa wax ca laaya ba ne ñu jaayante ak bi sallallahu alayhi wa sallam bi moo gën a yay ci ñoom seen jëmm moo gën a yay ci ñoom seen njaboot moo gën yay ci ñoom seen alal waaye laaya boobee duñ ko yemale ci yonent bi maanaam képp koo xam ne leeru rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu di ko wax ak xeetu nga xam ne mooy leer gi nga xam ne moo séddalikoo ci yonant yi séddalikoo ci kummul awliyaahu yi nga xam ne mooy wàllu suñu borom yi nga xam ne gaa yooyu nga xam ne boo taxoo ñoom ñuy def ci ak njub di fóor sa xel di fóor sa xol di fóor sa ruu ci def njubug suñu borom gi képp koo xam ne ànd nga ak ñoom la taxawan ca yonent ca saaba yi rek taxawaay wooye nga am sa digg war am sa diggante moom ñun moo mënu suñu jëm moomunu suñu alal moomunu suñu njaboot dañoo jébbal yàlla suñu bopp buñ jógee xel comme suba ñu ngi waajaat joj déwén saa buñ nenoo jóg la ñu jóg te lépp luñ defoon daaw buñ ñëwee ren fas yéene def mu gàcceel lañ defoon daaw taxawaay boobu daal lañ ci am te jëm yàlla rek tax na waaw ñu ngi taxaw ak Abo Rijal Fall ñu gis ko sànq ba tey mu nekk si liggéey bi taxawaay bi rafet lool ñu bëggoon a xam Dieuwrine lan moo waral taxawaay bi. ok taxawaay de liggéey Sëñ rek moo ko waral. dara lu liggéey Sëñ Tuubaa maanaam sëñ bi dañoo defar loo xamante ni si dañoo defar suñu mbir maanaam dañoo defar te ëllëg daal moo waral ñuy sonni si moom si zaar ak ci baate mënuñu ko fay sax moo waral mu demee ni daal suñu amoon leneen lu lii daal. avant dinañ jox lu ko maa ngi tuub nag damaa mënul wax maa ngi tuub yaa ngi door a xel ko wala yàgg nga fee ñëw waaw yàgg naa fay ñëw nag mais dal bi maanaam maa ngi fiy doog a teewee bis ni ah. maa ngi fiy doog a teewee mais yàgg naa tey noo gisee liggéey bi tey jii nii ci dal bi waaw am na fa chef yaatu na lool baak seen tubaab wuta naa yeneen dal yi daal fi mu tol ni moom wax dëgg yàlla alhamdulilah waaw depuis daal yeneen yi di ñëw yëpp incha allah xam naa fii la bu soobee sëñ Tuubaa jërëjëf non sant yàlla rek man Mohamed laa tudd Mohamed Ngom rek gis gaa yëpp di ñëw ñu bëgg a ñëw rek liggéeyal sëñ bi alors rek moo ñu fi indi ah. oui. liggéey bi nan ngeen ko gisee. liggéey bi sant yàlla rek sant yàlla bu baax. dafa mel ne yow yàgg ngaa góob noo gisee góob bi ak yeneen góob yi ngeen man booy siin la. waaw damaa béy. waaw at yi rek laa béyul. gaa yi waaj xel comme ma ne leen il faut ma dem li jël. incha allah quoi. loo gisee bii nii par rapport ak yeneen góob yi ngeen doon def. sant yàlla rek sant yàlla rek. woy yal na ñu fekke ko ay déwén yu bëri rek. amiin amiin amiin ya. kon kon kon yow ya, moom taalibe eh, ya, yàgg ngaa liggéeyal Serigne Saliou waaye eh, ñëw ci xel koom. ak tamit tuur sa ñaq. dafa mel ni yaa ngi koy doon def kon loolu lan nga ci gisee lu yees daal loo xamante ni bii ci xel koom ci ñëw tuur sa ñaq ngir jëmi Serigne Saliou. ngay sant yàlla rek. nañ ñaan yàlla rek ñu koy fekkee ay déwén yi déwén rek dafay loolu rek la ñaan yàlla sante ko sëriñ bi rek ndax lii démb la woon tey soog a ñëw ñun ay ndaw lañ yoo xamante ni dara war ñu loolu liggéeyal sëñ bi te tey ji alhamdulilah ba ñu sëñ bi tàggatee ci lu mel nii ndax wax dëgg neex yàlla euh, mënewuñ daal waa xam nga rek ñu wax lu bari nii mais ñu ngi koy rafetlu di ci kontaan di gën a ñaaxaan ndaw ñi ñuy bàyyi xel yoonu xel koom ndax liggéey la boo xamante ni ñëpp ko bokk te fay bi mënuñu koo xam fii daal comme ni ko sëñ bi waxee fay bi ëllëg lañ koy xam waaw loolu laa amoon na ma ci ñu gis leen ngeen bàyyi seen liggéey bàyyi seen lépp ànd ak seen mbokk yi ñëw lan moo waral loolu te it maanaam eh, xëy na amoon ngeen yeneen yitte yu ngeen mënoon a doxee lan moo waral ngeen bàyyi lépp ñëw fii tey di liggéey ci toolu Xelkom yi. waaw li waral ñu bàyyi lépp mooy toolu Xelkom ba ñu gënal lépp ndax mënuñoo am lu ko gën ndax fi nga xamante ne fa la yi di saafara moom moo gën lépp waaw ba pare di santat sëñ bu tedd bi nga xamante ni maanaam tagat ñu tàggat mhm. muy maal xayaat mhm. nga xamante ni tey jii maanaam jaral nañu lépp mhm. waaw daanaka yenn saa jot lañ dul am rek waaye daanaka bëgg nañ fépp fu mu ñuy woo rek maanaam ñu ciy taxaw bu baax di soññaat góor yàlla bu baax a baax ñuy bàyyi xel xel ko ngi nga xam ne la bi di woote pour ñu ciy teew lu bare bëri waaw di santaat Serigne Saliou Mbacké bu baax di ñaanal Serigne Modou Mbacké Mamoul hayat mu yàgg fi lool di ñaanal sëriñ Cheikh Salih mu yàgg fi lool Cheikh Siril sëriñ Moustapha Mountakha Bachir yàgg fi lool xel koom nag moom daanaka fi mu ne nii kenn taxatu waratul taxaw di ko wax kenn ndax kenn ku ne xamal nga ko sa bopp ndax kat mën naa wax ne sëriñ Salihu Mbacké mi nga xam ne moo ko sanc ba mu ko sancee ak léegi réew mi xam nañu njëriñal xel koom loolu dafa nekk loo xam ne jawriñ Euh, bokk na ci li nga xam ne man sama xelaat la ndax koom ñu bari jàpp nañ ne euh, ndimbalul Sénégal la du ma wax ndimbalul murid la ndimbalul Sénégal la ndax boo xoolee bi ko Serigne Saliou sancee ak léegi maanaam ci jamono yi mu koy sanc yi mu ko sancagul boobu ay millions la ñuy wax ci réew mi tey jii nag ba mu ko sancee ak léegi ay milliards la ñuy wax kenn waxatul ay millions kenn waxatul ay téeméeri junni ay milliards la ñuy wax. kon xam nañ ne yokkute am na te jaare ko ci sëriñ Saliou ak xel Xelkom jii may ñaan nag képp koo xam ne kii yaakaar nga sëriñ Saliou wala nga yaakaar sëriñ Touba sax ñëwal fii ci xel Xelkom lillaahi wa rasuuli xool njariñ li fi nekk na ngeen xam ne xel Xelkom ñëwuñu fi ngir sëriñ Saliou ñëwuñu fi dañu fi ñëw ngir jariñu dañ fi ñëw ngir liggéeyal suñu bopp jariñu tey ak ëllëg njariñul tey la ak ëllëg ku bëgg a yokku wala nga bëgg a jariñu ñëwal xel Xelkom dee ñëw xel kom ngir yàlla lillahi wa rasuli jariñu ci seen wér gi yaram ci seenam koom ci seen lépp lu ngeen am dee leen ñëw xel koom man day ba ñu koy góorgóor bu njëkk ba ba sëriñ Saaliw joxe woon sëriñ waa kër maam Cerno Birahim Daaru Muxti ca laa tàmbalee ñëw xel koom ba fii may wax ak yow te yaakaar naa ne sama ordonnance de bariwut mosuma entré hôpital te maa ngi ci juróom benn fukki at ak ñett kon loolu firnde la ci ne xel koom fajukaay la ñëw leen xel kom lillahi wa rasuli lu fi waay fas lu fi waay fas te départ fa nga nekk ñëw fas ko fi incha allahu rabbul arsi sunu borom dina la ko defal loolu kat laa leen di jottali ne kaddu yi war te bari wax dëgg yàlla ndax man ab taalu beelaa dong bopp saan Serigne Saliou maa ngi jéggulu tey balu àq ñëpp tey baal àq ñëpp yal na sunu borom boole jéggal yalla nañ ko teewoon na nga ni di ñaan Serigne Modou Mbacké mii nga xam ne mooy sunu jëwriñ yàlla na ko fi sunu borom Mbacké saxal yàlla na ko fi sunu borom Mbacké saxal yàlla na ko fi sunu borom saxal njaboot gi nekk ci ginnaawam te yaakaar ñu lu dul moom topp ko yal na leen sunu borom yàgg yàlla yokk kattan ñu yàgg fee ñëw yàgg topp ci ginnaaw. maawul xayaat wallaahi yal na yal na ko yàlla guddalu fanam. fekk ko bu baax a baax a baax. ndax moom liggéey bii nga xam ne liggéey Sëñ Tuubaa képp koo xam ne da lay si jàppale ba nga man koo def ni nga ko war a defe mënoo koo fay. kon Cheikh Ahmadou moom taxaw na temm wutal nuy oto na lekk gu doy wutal na fu nu dal kenn sonn ñëpp ngi liggéey te boo liggéey nu am pay goo xam ne ëllëg yoo mën xëy am nun lañ koy dencal kon kenn mënu koo fay balaay sa yàlla na fi yàgg te wér nun waa Manaaru Daar rek nun dañ koy ñaanal fu nu ndax dëkk boo gis ka fa ñëw di koo xam ne góor yàlla guy liggéeyal yàlla la di om man ñu jëme ci yàlla ba tey ñëpp làgg ñëpp a ngi liggéey liggéeyal yàlla mbarasaan ñeent juróomi kaara fa jóge yoo xam ne kenn ku ne da ngaa sawar a ñëw ndax Cheikh Ahmadou bam nu mosale léeg-léegi kenn rëccu ko yàlla na nuy góob xel koom di ko góob di ko góob ba màgget barke Sëñ Bamba waaw yu Cheikh Ahmadou Mbacké Maol Hayaat nag li ma seetlu tey ren mooy mbooloo mi daa yokku mbooloo mi daa gën a takku mbooloo mi dañu gën a am pas-pas kenn ku ne bëgg sa moroom ñu liggé liggé bo xamna xamna né yalla dong nga ko waral kon Cheikh Ahmadou lim mu bëggan am nako kiko yaral mo Cheikh salih euh, euh, euh roy nako don nako ci jikko yu bare bare bare yalla taxaw taxawam balay assalamu alaykum ñun ñoo tudd Soxna ko duggé dëkk Touba Mbarasaan ñu koy wax Manarou daal ñu gën ko xam ci Cheikh Ahmadou mbak ma maa xiyat ñun ñoo ngi koy sant rek di ñaan ndax déssé luñ ko dul sant ak ñaan ndax tay bu ñu joggé jógee Manarou da ba ñew xel kom rek ngir yalla ak jëm moo tax. te ñun sax bu ñuy wax ne di tagg ku nu mën a tagg rek sëriñ bi lañ xam ndax sëriñ bi moo nu defal lii ñun ñëpp xamante ni di liggéey nii xam nañu liggéey lii mi jariñ xam nu tax a jóg ñu di ko jëfandikoo ngir yàlla see Ahmadou Mbacke la ndax loolu lum nu dundal la jàngal nu ko ba nu xam ko ba min ko ba mën a ñëw xelkom ba xam li li xelkom di jariñ ak li nu war a dund xel koom ak li nu fi war a jëfee loolu ci jëmmam la ñu ngi koy ñaanal jëmmam ji suñ borom defal ko kàttanam mu gën a kawe lépp lu mu sabab ci yoonu lislaam suñ borom yeggaleel ko ko ci yéeneem ak jëfam ndax moom bu guddee fan rek ñun dinañ jariñu ñun na xañ na suñu yàgg fi du am njariñ ndax li ñuy def ci ay tolox tolox day jariñu mais suñ ko dee gis rek dinañ jariñu waaw li ko waral tey ñu ngi jógee ba Dakar li ko waral tey uh, woote Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Salihu tey ba mu daan war ci koom tey bis bi da fàttali day fàttali ni uh, bëgg gi nit ñi bëggoon topp ko ndaw ñu toppan ba léegi ak la ndaw ñi ba léegi ndaw ñu fàttewuñ ko dafay nekk loo xam day répété chaque jour mais du loo koo xam si lu ñuy fàtte la ndax uh, amour bi bi ndaw ñi amoon ci Serigne Saliou boo xoolee mbooloo mi tey tey xam tey lay gën a yokk boo xoolee positif bi ak li fi nekk tey ak fan commencé ak fi ñu yem nga xam ne Serigne Saliou rek a fi nekk liggéey Serigne Saliou rek mooy tax a mucc te Serigne Touba maam Cheikh Rahma Fall radiyallahu anhu dafa amoon ko ñëwoon coow ni ko damaa bëgg liggéey Serigne Touba te ama doole mu ne ko liggéey Serigne Touba mooy tax a mucc waaw liggéey suñu tubaab waaye da ngay mel ne jinax rek da bàyyi ak sa bopp lépp sëriñ da ndax jinax li yàlla bi ne lépp moo ci gën a woyof ab der waaye boo ko dàqee day wad rek dugg ci bi du ko jam dara du ko foof dara du ko boo bàyyi ak sa bopp sëriñ Touba sëriñ Touba moo la yoral lépp nit ñu am na ñoo xam ne du ay moyen am na ñoo xam ne dagg seen i am na ñoo xam ne ngi nekk ci yeneen waaye tey fi nekk boo xoolee safar ñëw na ba pare mais nit ñi faat li ñu sax na waaw kon ñu ngi gërëm bu baax a baax a baax di ñaanal Cheikh Saliou Mbacké mu Cheikh Saliou mu yàgg fi lool te wér di ko ñaanal mbokk mu euh, Cheikh Mbul mu Cheikh Mbul Muntaxa mi nga xamante ni si kenn ku ne gis na pëstéefam kenn ku ne war na ak ku ne tey fàtteeg sa taalu bi ndax Cheikh Muntaxa waaw kenn ku ne xam ne ak bëgg-bëggam ak yéeneem ak muritam kenn du ko nattam la tax na bu fekkante ni si da ngaa nekk ci àll ba nekk koo xamante ni si da ngay def loo xamante ni si ni nekku leen waa jàpp nga ci wenn yoon jàppe murit ay caaxaan wala ay kaf wala yi dof tey jii lii wane na ko murit du ay caaxaan du ay yëfi dof du koy taxawaalu kenn liggéey la ak jaamu yàlla ak jàng xasida yi waaw loolu rek moo fi nekk jàng xasida yi liggéey ak jàng alxuraan loolu seex mu taxa euh, digle loolu seex mu a digle ndax boo jëlee xasida yi ak euh, xaaf gi la lu mu lay jox alxuraan ah siin bi lu mu lay jox euh, salaatu ala nabi del ga lu mu lay jox adduaaw kon muy li wan ni lenn texul lépp Sëriñ Tuubaa daraam du hasard daraam du hasard lépp liggéeyoon na ko lépp defaroon na ko dafa préparé waaye nag ñun taalibe yi ñun ñoo war a xam ñun ñooy kan ñun ñu war a xam fa lan jëm ñun ñu war a xam lan moom la waaye ndaw ñi du Serigne Touba nga ni Serigne Touba est di taxaw ci mbedd mi di wax ñu Serigne Touba laa gëm Serigne Touba te ga ñu lan lan mooy yóbbati lekk ka ba nga taxaw daal di taxaw fële selenglu ca loolu Serigne Touba déglewu ko Serigne Touba jaamu yàlla ak liggéey la lan sant ndaw ñi surtout ñun ndaw ñi ñu leen jéggalu bu baax a baax a leen taxaw foofu di wax ini uri illallah ma sax tuma tawfiq ila billah Touba Ndindi Sidi Diouf sama romi ni la mok àjjuma dama leen sop rek sop sëñ bi man nag seen jarbaatu baay laa ñoom luñ bëgg ma nga ta ndax moom dañu ci lu baax di doxti ci lu baax di wax ci lu baax laxasug señ Modou bi nga xamantene ku bëgg a baax da ngay dem ci mom ndax man xamna ne ba may ba may ak ñoom ba ma ngi ci gis ndari ndax sama xol nga rafet sama xol nga changer ma ngi changer ci lu bari te señ Modou ku koy rek lepp jam day défar aduna defar fepp lay defar kuko top sa leppay jek sa àddina ne jek sa alakhir dina jek te lu yóotu te loo yóotu di ci jot ba pare da ngay nek gem gem da ngay nek confiance fo fo fo tollu rek deggu gi day nek ci yow dila jox force te grâce à Adjuma djouf ak sidou djouf ken du ñom parce que man dañ ma jël may centre jarbaatu papa <coughs> dekk ak ñom nak di borom keur bu jigeen teewul côté bu ne ñing ma ci jappalé côté bu ne ñing ma ci dimbalé te mbax googu xamna ni ci seigne Modou lañ ko jëlé xam naa ko xel sama nijaay nag nekku doon ko bon waaye nag ni ñu changé mbaax gi ak yoon wi ñu retourné ba jël ko ak yoon wañ jëloon ça fait deux sëñ bi changé na leen bu baax a baax a baax a baax def ci ñoom lu baax may roy ci ñoom nag di nekk ak ñoom nag fas yéene lu sëñ bi woote tey ba ëllëg rek maa nga tax liggéey sëñ bi rek jërëjëf soxna si kon euh, euh, yaa ngi ñi ñëw tey lan moo waral ngeen bàyyi seen yitte bàyyi lépp ñëw ci naaj bi ñëw ci liggéey xel ko ak naka ngeen gisee liggéeyu xel kom bi ren xel ko man ba ma fay ñëw ah ba ko sëñ Saali wootee mu jël mu woote may boot sama benn doom léegi suñu waa kër dem bàyyi ma man ne ci kër gi dafa sama jën ba si yàgg ma ne man bu fekkente ne man sëñ Saali wala Serigne Touba am naa ci cër wala am naa ci Touba ndindi gi ma dëkk am naa ci cër rek tey tey tey naa dem yendu ji ndindi naa dem yendu ji xel koom keroog damaa jógee ndindi ay 9h wàcc gaar bu ndaw continuer at sama wax ne man bu fekkente ne rek yoonu sëñ Tuubaa bokk naa ci tey naa dem xel koom oto dafa gaare ma dugg dem xel koom ma ñam ko nag mu neex te duma ko bàyyi xam naa ne njëriñ a ngi ci te li tax nag moo du woote ko ku ko dégg waxuma la murit sax mais boo nekkee doom aadama sax boo ko déggee war ngaa mën a yow waxantumaa nag nga nekk doomu aadama nekk murit dëkk Touba dëkk Touba Ndindi di ngi di nooyee seigne Modou man seigne Modou dama ko bëgg ci sama xol man soxna Ami Diouf dama ko sop dama ko bëgg te dama content ndax fi ku fi ñew xeyna mom nga ko defale mais sa bop nga ko defal fi bo fi ñewé di tapalé defaloo ko sa bop nga ko defal nga ñew di liggé defaloo ko sa bop nga ko defal te lu way liggé rek mom ngay añoo bo fi liggéeyee ben ben ngay añu nga liggé fi fukk fukk ngay añu loolu dal la gis seigne bi am ci yegge gu sayen fi ñewé dal fi jëlé di sante sen sang bu tedd bi Cheikh Ahmadou mbacke Maoul hayat ndax ban ko àndeeg mom ba léegi liggéey bi yokut rek lañ si jëme di ñaanal mu yag fi tewer bor yeg yeg rek taw feex xana top ndigal rek feskee ne liggéey ban yeewiñu ci jamm salam ndax biñ koy def ak léegi dal yokut rek lañ si gis amuñu si ben wàññin ñi ci top seen yalla yi di len ñaanal ngeen yag fi tewer lolu nga ñu laaj luñ sa tontu la ndax ndigalul sunu sëriñ cheikh ahmadou mbacke maawul hayat mo jib te sëriñ bi kenn ku ne ci ñun xamna ni mu mel ci ñun ndax mom mo nu gene ci ak lendeum andi nu ci ak leer Serigne Touba mi nga xamne ni mom lañ bok jokk ñun ñep ci mom lañ xamé kan moy Serigne Touba liggéeyal Serigne salih itam ci mom lañ ko xamé gon loolu dana yomb lool ngeen ma tontu la sant suñu borom dong moy liñu ñu indi ci tool yi ak féetliyaat suñu ànd ak ku tedd ki di si Ahmadou Mbacke Maoul Hayat te xamne suñu dundu gep dañuy jéem a góorlu ngir jëf ay ndigalam mais waaye lott nañ ci fay ko ci dëgg-dëgg tawfiix yi nga xam ne def na ko ci ñun sunu dund gépp ci lañ am yéene jeexal ko di ñaan yàlla sunu njaboot gépp itam ñu seey ci yoon woowu di ko dund ñu ànd kook ñoom ba bañ leen ci bàyyi ñu bokk di ko dund ba àddunay tukki waxtu wu nekk saa su ne ñuy dund maawul xayaat sëñ xaadim laaj bi diis na lool lot naa ci tontu ko waaye suñu jëf yëpp sant suñu boroom la suñu diggante ko tedd gi ndax baatu sant moom boo ko xasee tudd rek lépp dugg na ci biir ndax dañuy jëf suñu kem kattan lot ci sant suma borom la ca des ñu matlee ko suñu yéene waaye jëm ji nga xam ne moom lañ àndaat li mu def ci ñun ci njub nim ñu leerale àdduna bañ xam fi ñuy teg suñu tànk xam ni ñuy jëflante ak suñuy moroom suñuy kilifa képp koo xamante nii rek ñu ngi jëflante yow xam nañ ñuy jëflante yow ci wàllu àdduna ak ci fànn yëpp te loolu lépp ci sàng bu tedd bi lañ ko tànqee sunu lislaam it am nañ ci tawfiix joo xamante nii lot nañ ci biral ko te yàlla dogal na ñun mosuñoo gàddu saak jëm fenn waaye tey ji amul lenn loo xam ne danañ ko ci laat lenn lu ci ne rek dañ cay sant sunu borom xamin wu wér lañ ko xam boo xamante nii amuñ ci lu ñuy sikki sàkka fiñu tek sun tankit dañ ci sant sunu borom bu wir wir wir xamne siratal mustaqim la amun ci la ñuy deng deng ci lañ am yene faatu yit yalla na sunu borom faat tu musul na ci ak woru musul na ci pexem saytaane musul ni bolem ak mbolem pak yep di delu di sant bu ku tedd ki di ko dole ñaan mu gën fe yag te gën fe wir gëna wir di dole itam ñaaxat mbolem mbokki tel bi yep ñu bok gëna a góorgóorlu gën kasai. te xam ne yoon wi moom mooy foofu ndax sëriñ bi lim ñu digal sëriñ Tuubaa loolu la doon digle yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yoon woowu la tege woon képp ko fi bàyyi nag leneen loo duggaat loola liggéeyab seytaane la ndax li mu wax ne def na ko ci ñun te ñun ñu xam ko bu wér loolu yàlla dong moo ko man waaye keneen ku dul su moroom mënoo loolu koo xamit ni bi ngay ñëw ci loxoom boo tiimee alxuraanul karim man bi ma njëkkee ñëw ci moom jukki biñ ma jox bi ma ubbee première passe rek ci laayam ba kaamir bi jeex dañoo nangu sama kaamil te yàlla dogal na tey jii bu ñuy séddale ab kaamir gën gaa gàtt ma for ci bu dee ñaar sax wala ñett loolu dañ koy sante suñu borom subhaanahu wa taala suñu àggee ci bu gaa yu baax yi dee wax ñu ciy for dara loolu it jëmmam la dañ ciy sant suñu borom subhaanahu wa ko doon lim suñ xaarim fi la ñuy fanaan waaye baatub sant daal buñ ko dugalee jeexna tak lot nañ ci sant ku tedd ki sahal na suñu borom saxal nak ci keppaaram waxtu wu nekk sa suné sa saa yu rek ñu top ci ginnaam di jëfee ndigalam di ko tuubal itam ñak matal li nga xam ñak nañ ko matalé taxaway bi nga xam mo war suñu digënté ak ñoom di tuubalé mbolé mbokk talib yépp euh, ligé bi dal ñoo ngi sant sun borom baax baax di jaar suñu sant ci Cheikh Ahmadou Maoul Hayat sant gi nak manam mun ko bëral ba taxna bi nga xam manam maanaam ñëw kéré ci tool yi fajaru xooluñu waar yaatu na maanaam gars daal pësté bi ñuy doxee fi mu toll dayoo tool bu njëkk bi dóor nañ ko fi mu toll tool bi yaakaar naa bu ñu ci gontaat dinañ dinañ ko dinañ ko dóor ndax soo dee xool suñu sas daanaka jeex na ndax li fi dóor moom am ko fi dóor cant googu nag ñu ngi koy sant suñu borom bu baax a baax a baax a baax di ko di ko jaaral ci Cheikh Amadou Mbacke xam ne maanaam euh, xel kom bi nii mu doxee nii mosuñoo doxee wax dëgg yàlla mosuñoo doxee rythme bi ñu doxee nii ak euh, euh, tawfeex gi ñu yëg mosuñu ko yëg ba tax ñoo ngi ci sant bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla di ñaan képp ku ñëw suñu borom defal la tawféex euh, boole tawféex yooyu ñoo ngi sant suñu borom baax di sant si Amadou xam ne maanaam yokkute ak mbégte ak tawféex ak euh, lépp daal mënees su ko wax daal ci lamañ ñu ngi sant bu baax daal ñu ngi sant bu baax waaw ñu a xam lan ngay wax ñi nga xamante ni musu ñoo ñëw xel Xelkom te di ko dégg rek ñu bëggoon a xam yéen lan nga leen di wax fi ñu toll nii loo xamante ni bi daal xëy na dina waral ñoom ñu fonk liggéey bi te di ko bàyyi xel waa ñi nga xam ne maanaam xamaguñ na Xelkom fu mu féete wala maanaam am nañ yéene te mënagunoo ñëw waaye wax dëgg yàlla ñu ngi xalaat ñu nga xam ne maanaam fii daal bunti taw tawféex la bunti ngëneel la ndax euh, wax dëgg yàlla liggéey bi ñu fiy liggéey ak euh, ñi ngay liggéey te wër na la boo ko defee sa waaru bopp da nga tooy wala da nga da nga feebar te bu dee ci waaru bi moom doo yëg-yëg bi am day tax na maanaam doo tay doo toq bu gars yi wax wàcc jot naa da ngay na wala deux heures jot na yow doo xam fu heure bi yow daal defante rek ngay bëgg wax yàlla ku ñëwul xelkom daal ñaanal suñu borom tàbbal la ci te nga eh, jaarale ko ci eh, kibaar ak Mamadou Hayat si amoon Mbacke Mamadou Hayat ñu sant bu a baax waaw ñu ngi leen di gërëm baax a daal ñu ngi baax ñu bëggoon a xam tamit ba tey naka ngeen waajalee parce que ñu ñëpp xam nañ ñu ngi jëm ci màggalu Touba ci 18 safar ñu bëggoon a xam tamit Touba diwaan Touba Manar Khouda ak yéen nan ngeen koy taxawaaye fi ñu toll diwaanu Touba Manar Khouda Ah, ñun ba màggal passé la la ñuy waajalaat geneen màggal gi ah, ndax fu ñu doon maanaam suñu yitte ak suñu pas-pas ak suñu lépp mooy ah, di si safar ji ndax am murit amuñ lu ndigal te ñun ndigal si amoon Mbàkke ak Mamal rek la ñuy déglu ak ko ñor te loolu moo ñu ñor moo tax màggal ga ñu ngi koy waajal ak mbokk yi yi wër li wër Mbarasaan yëpp di leen ko di ko yëgal maanaam di xam ne maanaam bisu tawféex la bisu ngëneel la ñu ngi sant suñu borom baax a baax baax di sant si amoon di xam ne maanaam lépp daal alhamdulilah macha lan moo waral seen teewaay tey fii. yaa ngi may laaj bi doy waar nag baay xanaa liggéeyal Bamba rek liggéeyal sëriñ bi rek amuñu ko dul sëriñ bi sérieusement dara gënul ne na nga juddoo ci yoonu murid quoi fa ñu liggéeyal ko ba dee parce que mënuñ kaa tey yàlla ñu Bamba yokkuñ si leeram. dafa mel ne tey ngeen di doog a ñëw xel lu tax. waaw waaw ngi soog a ñëw xel kom nag vraiment yàggoon naa bëgg a ñëw nag mais nag hmm, yàlla moo ko dogal toon quoi tey la ko yàlla dogal. donc may sante borom bi ah, en fait may soog a c'est ma première fois quand may eh, sante nak ngeen nak ngeen gisee manam c'est votre première fois ngeen ñew fi manam nak ngeen gisee manam liggéey bi ak xel ko manam dal la ngeen ngeen ko sento won ak ngeen ko fekkee ah waaw xel ko mom foko sante sant rek weesu na foofu foo ko sant moom na foofu sérieusement en fait euh, mësuñu ko xam nag mësuñu ko xam ñoon dañ yaakaar aussi liggéey bi yomb na yombul mais bamba ji jar lu ne jar lu ne vraiment xel ko mom ñoy ñaan yalla sakane année daal ñu ñëw teew ko loolu daal la ñuy ñaan. kon kan lan moo tax ba ngeen xam ko ren ba ñëw. bon Sëñ Modou Mbacke nag bokk na si Sëñ Modou Mbacke ak ay taalibe parce que si koñ ba lañ bokk bon man waa borom dër bi laa quoi ci borom dër bi laa bokk mais ñoom ñëpp benn la. ñoom benn la taalibe ñoom la ñuy àndal dañoo jaar foofu benn jour rek après gars yi nañu mën nañoo dem quoi en fait euh, man leen bind leen loolu daal moo war a ñëw bi waaw ñëw nañ fii ñëw nañ fii ànd ko fierté mbégte ci liggéey Serigne Touba waaye liggéey Serigne Saliou Mbacké waaye liggéey Serigne Modou Mbacké ànd ko nag mbokk ci Serigne Cheikh Serigne lu parce que xel ñoo ci mais bi ñu ñëwee gis nañ ni vraiment sëñ ku amoon xalaat la ku amoon maanaam euh, culture de ndax àll bi ku ko bay te li fiy génn lépp ci jaami yàlla yi la jëm te yonent bi nee na alayhi salaatu wasalaam képp ku reggal benn biir maanaam loolu na ngeen xam ne moo gënal yàlla nga tabaxal fa ci kaw suuf ñeent fukki jàkk dugub ji bu fi jógee ak gerte gi ñaata doomu aadama ñu fi dund buñ ko lekkee ci wan tur yàlla lañ koy reesale ñaata rakkalam ci julli tuyaaba jooju kenn xamul ko waxuma sax loolu mais daara yi fi nekk nga xam ne alxuraan la ñuy jàngale ñuy mokkal alquran ñooñu buñ fi jógee ñaata doomu aadama lañu ñuy ñaata doomu aadama la ñuy jàngal alquran pour ñu mokkal kon nga xam ni kon sëñ Saliou keneen la woon bi ci topp mooy euh, nit ki fok mu yëngatu mag ñi dañ daan def lii pour graisse su riba gi nekk ci sa yaram wi mën a seey mm-hmm. ba jubluwuñ ci maanaam mag ñi dañ daan def lii ngir euh, nit ki fokk mu jëw fokk mu rambaaj fokk mu fen wala yàlla dimbaliwul waaw xeeti ñaawteef yooyu bon bon yooyu maanaam am na ci yoo xamante ni bii ni ñàq ci toolub yàlla dong moo ko mën a dindi waxuma la am na façon riba yoo xam ne boo ko lekkee liggéeyal nitu yàlla góor yàlla rek graisse googu rek moo koy wàcce fa tabaarakallaahu kon loolu euh, point la bu jéego la boo xamante ni bu nu guddalul maanaam mën nañ ko ci andi fa tabaarakallaahu nekk loo xamante ni bii ni lii euh, nekk na loo xamante ni bii ni euh, bi mën naa ni sax laay wax war naa bàyyiwaat xel xel koom xoolaat ko beneen bët parce que lii lii lii xoolal da ngay xool fa sa bët yem lépp di dugub waaw te ci biir nit ñi dong la dem te nit moom bu rékkut mënut a jaamu yàlla mënut a dox bokk mënut a wax lu rafet mënu koo def kon euh, daal dañuy sant yàlla julli ci yont bi di ñaan yàlla sëñ seex moom sëñ Saliou suñu borom yàggal ko fi tam ànd wér yàggal fi tamit euh, jëwriñam bi suñu Modou Mbacke Maol Fayat mu yàgg fi te wér ba tabaarakallaa nga xam ne suñu xarit la suñu wóllëre la fa mm-hmm. tabaarakallaahu te moom waxal na ko boppam yàlla na yàlla sàmmal ñu kóllëre googu mm-hmm. waaw fa tabaarakal loolu daal xam naa ni sëñ bi mm-hmm. moom lañ ci doon indi ci euh, imaam ñu bëggoon a xam ñi nga xamante ni musuñoo ñëw xel koom te yàlla dogal yow tey jii nga teew fi ñooñu nag lan nga leen di wax waaw ñi nga xamante ni bii ni mosuñoo ñëw Xelkom eh, xëy na di dégg Xelkom Xelkom nan ko daan déggee ak man ni ma ko gisee nii maanaam eh, bokkut parce que dañ daan wax Xelkom moom eh, da ngay mel ni kuy dem armée armée moom xam nga foog nga maaj foog nga xiif foog nga mar waaye fii moom gisuma fi yenn xiif yi gisuma fi yenn mari ba ba mu war a mën a tee yenn jaami yàlla yi di ragal ñëw ci àll bi Euh, ñaareel baatam euh, comme euh, mouridisme ni ko sëñ Tuubaa tënkee xaadimu rasul nga xam daf ni Tuubaa li abdin mouridin saadixin lahu maa bi xidmatin aw xubbin aw hadiyatin yow bu fekkente ni yow taalibe nga te yow doo joxe addiya ah doo doo xitma xitma mooy comme li ñuy def ni liggéeyal sëb sëriñ doo joxe doo doo doo doo maanaam doo loolu sa taalibe maanaam da nga wax ci sa làmmiñ rek mais Euh, wax dëgg yàlla dafay des te ku mel ni sëñ Saliou nga xam ni fa tabaarakallaahu nekk na fi xalifa général Mouride nekkal fii si Tuubaa Xaadimu Rasuul nga dund ak moom jamono ba mu wan la gannaaw te toolam yi jaaroo fa kooku bu la ko dara jaral maanaam bu la ko parparloo jaral bu ko wut foo féete jaral maanaam mbir mi moom na la sëñ Tuubaa tax a jóg akum njàngalem rek fu fi mën a doon ku ne nga xoole ko bëtt sëñ Tuubaa moo tax bu wootee nga wuy bu diglee nga def bu tere nga bàyyi lo dal lay wax ñi nga xamni ne ñu ñew fi xel ñu ñu xol ñew xol xel koom li fi nek jëm ci barkelu jéem a manam jangat sax parce que reuy gi dalay lay dindig rëy da lay dindig rëy parce que wax deug yalla amna ño xamanteni bi ni tay ji du wacc seeni auto euh, kilim biro kilim auto kilim ker kilim bo ñew fi naaju tang yi ah fa tabarakallah ngay ngay ngay jaxasu dugub ji di tekkete lo mbante yek ñom seen xam nga yoyu day dind ak reuy ci nit mi ngi mel ni nga dem makka dem lambay di dawaka won fe dox wax ba dox doj xam nga dem arafa yooyu yep. dañu bëgg ñu won la ni la yow do existé wu manam jam bi li fi nek diko ko élémenté mooy borom bi subhanahu wa taala mo fi nek kon da ngay effacer sa bop rek mana don insanul kamil waaye waxtu wo gisee su wujud bi rek sa am gi waxtu wo ko gisee rek na la woni ni lay jural nga bokkaale yàlla te bokkaale yàlla bi gën a rëy mooy zanbul wujud mooy jàmm bi di am amal boppam ci kaw amul yàlla subhanahu wa taala